maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di wax ne lii mooy leçon numéro 3 bi ci euh, Microsoft Excel en wolof euh, tey nag moom li ñu waxtaanee mooy li ñuy wax cellule parce que cellule bu ñu wax bu ñuy wax Microsoft Excel cellule moo ko moo parce que cellule mën naa wax ne comme ni ma ko waxoon ci vidéo bi passé mooy fondement de base bu Excel Excel di ko composé lépp ay cellules la ko wax léegi pour ñu bañ a tardé ci explication cellules yi nan dem ci application Excel bi ubbi naa fi benn application Excel. léegi cellule euh, saa yoo ko euh, sélectionné day am benn euh, bobbi boo xam ne mooy nekk fii par exemple boo xoolee fi cellule A1 moom la sélectionné par exemple moo sélectionné bësoon une woon souris sélectionné fii benn cellule ci digg bi par exemple daf may génneel cellule C C6 comme ñeen ko gisee ñëwoon naa leen fii mooy adresse adresse de cellule toujours cellule bi nga xam ne moom nga sélectionné moom mooy moom mooy génn fii comme ñeen ko gisee nii léegi euh, loolu daal laa ne woon naa leen ko expliquer pour nga xam ne loolu mooy ñoom la ñu sélectionné cellule léegi euh, cellule bi tamit euh, soo ko sélectionné da boo fa bëggee def continue ma ne dangay commencé bind par exemple ma def fi contenu contenu par exemple voilà gis nga li léegi li nga bind contenu bi nga bind nii ci cellule bi day génn nii ci ci barre de bi comme lii laa la waxoon ne mooy barre de formule comme ni ñu gisee nii barre dem pour bind par exemple boo sélectionné si biir au lieu que ngay bind directement bi lépp foofu la ñëw loolu tamit dama bëgg ngeen xam ko bu baax euh, loolu mooy euh, li nga xam ne nii mooy mooy cellule bi ngeen di soog a démarrer pour ngeen euh, comprendre ko noonu léegi léegi bu ñu ci sélection cellules yi ñu ñëw ci Euh, par exemple contenu bi nekk mën a nekk cellules yi cellules yi contenu bi mën a def mooy bari na mën na nekk texte man a nekk euh, par exemple euh, ay chiffres mën a nekk lu baree bari daal di wax ne tamit cellule bi mën nañ ko copier mën nañ ko couper mën nañ ko coller par exemple boo defee clic droit ni ci bi am na copier boo copier boo defee copier cellule bi da bi nii commencé bordure bi li ko nii day changé comprendre day day changé maa ngi jégalu sax day su ma su ngeen ko bëggee kiyaat da ngeen basaat da ngeen def double clic rek après après affaire bi euh, kii bi annulé wu quoi copier bi annulé bi laa bëgg copier damay def copier léegi soo copier léegi euh, soo copier après da ngay ñëw ci beneen cellule euh, da ngay sélectionné beneen cellule bi nga xam ne fa nga bëgg a coller bi par exemple boo defee coller voilà gis nga ni mu daal di coller wu da mel ne de de même chose que kii léegi comme ni ma la su bëggee annulé affaire bi il faut nga def double clic pour mu arrêté léegi loolu mooy moom lay moom la ñuy wax copie am na am na coupé tamit par exemple mën nga coupé affaire bi coupé sélectionné fi benn cellule def ko collé loolu lépp mën na nekk voilà léegi boo defee loolu continue bi day daal dem parce que da nga ko da nga ko coupé quoi loolu tamit euh, ngeen ngeen ngeen xamee ko noonu mais ay possibilités la yoo xam ne mën na am na ci am na ci Excel euh, di wax ne daal euh, cellule moom ni ngeen jàpp ne il faut ngeen comprendre utilisation cellule pour ngeen mën a jëfandikoo Excel comme ni ma leen ko waxee rek cellule bi nii mën koo formaté par exemple mën nga ñëw fii format de la soudure comme ni ma leen ko waxee woon euh, façon format yi bari na mën nga choisir ban catégorie de données parce que comme ni ma leen waxoon façon façon euh, contenu bi mën a nekk cellule bari na mu ngi nii mën a nekk nombre man a nekk date heure pourcentage fraction texte ainsi de yooyu yëpp mën na euh, li ñu fi mën def bari na quoi mën nga def alignement kii bi nga alignement cellule bi police bi mën nga changer par exemple Euh, par exemple mën nga changer police police texte bi par boo defee boo boo defee police bi day changer gis nga nii euh, police bi day changer mën nga changer bordure bi comme ni ma leen ko waxee bordure bi moom mën nga ko changer mën nga def fii choisir fii benn benn contour comme contour yi fii am am na ay contour yu nekk fii yoo xam ne si automatique voilà mën nga choisir tamit euh, mën nga choisir remplissage par exemple mën nga ci ay couleur couleur rouge par exemple voilà ainsi suite yooyu yëpp ay format la yow yaay xool cellule bi ni nga ko bëgg a euh, formaté protection mën nga cellule bi sax mën nga koo verrouiller loolu ñu naan verrouiller par exemple boo ko verrouiller loolu après naa bu ñu gënee dem ci euh, avancé danaa expliquer lan lay signifier léegi daal loolu mooy euh, mooy cellule lu am solo loo xam ne nii moom mooy fondement de base bu Excel en même temps am na benn genre lu ñuy wax benn genre carré boo xam ne daf lay permettre nga remplir cellule yëpp d'un seul coup ci même euh, même contexte bi maanaam même même kii bi même contenu bi par exemple contenu bii nii su ma ko bëggoon a euh, gis ngeen ni soo tegee nii euh, souris bi da gis benn genre plus ci côté bi boo xëccee plus boobu noonu rek seul yi seul yi nga yëpp dañuy jël li nga xam mooy mooy par exemple li nga ci cellule boobu su dee su dee yenn yenn yenn données yi am na ñuy def exemple bu doon un bu doon un par exemple nga def jël cellule bi deux après nga sélectionné ñaari cellules yi ba pare teg teg affaire bi fii nii pour am euh, plus bi boo xëccee moom da koy def da koy def comme euh, par ordre numérique parce que day day xalaat ne yow da nga bëgg colonne bii nii mu nekk par ordre numérique gis nga nii ainsi de suite léegi daal loolu lu am solo la daf lay permettre nga mën a remplir cellules yi ci ni mu gën a gaawee mu ko préfet mu gën a gaawal sa traitement de texte quoi euh, loolu laa ne woon naa leen ko indi comme information di leen jaajëfal bu baax